muy bés boo xamante ne nii bés bu ñuy waajal la bés bu ñuy màggal la di ko amalee fii si diwaanu Gaawaan te annonce ak appel bu am solo boo xamante ne nii daara maam Mafal Seck ñu ngi koy eh, ji amalee fii ci diwaanu Gaawaan. waaw comme niñ ko waxee rek eh, defe naa pays Mawlana Cheikhul Islam Aj Ibrahima Niass baay niñ koy defee mooy Mawlana Cheikh Ibrahim ñaanoon na ne alxuraan mooy karaamam. kon dëgg-dëgg balaa ñuy commencé lenn si jotaay bi rek dañ koy jox lenn si ndongo yi su ko defee mu ubbil ñu ko ak lenn si laay alxuraan incha allah aoudu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ۖ لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله العظيم mi ngi noonu kàddu yu am solo yooyu nga xamante ne nii moom la kon dañuy jox ki nga xamante rek moo yor wàllu daara ji su ko defee ñu jox ko micro bi rek mu daal di lan la jotaay bi tëddee incha allahu rabbi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi tudd mustafa Seck di membre fii ci daara Mame Mafal Seck di aussi chargé communication bu daara Mame Mafal Seck ci dox dox bu gaaw rek daara Mame Mafal sekk defe naa ne ci tund yu ñu ne dootuñ ko présenté ti kenn parce que ñëpp ràññee nañ ko gis nañ liggéeyam gis nañ taxawam gis nañ ni muy doxee dox bi muy dox nga xam ne dox bu am am solo la nga xamante ni daara ji dafa tënku ci ay kilifa tënkuwu ci lépp daara ji ndigal la jugee moo tax ndigal loolu noonu moom la ñuy wooyee ndigal loolu ci la lañ yaakaar suñu résultat yi parce que pays bii ñu nekk nii booy dox te amoon ndigal dox bi mën naa yéex bu ñu amee ndigal nag di dox dox bu gaaw alhamdulilah la ñu wax ci loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax daara ji mooy daara Mame Fall Seck di 10 octobre 2018 nga xamante ni dox na dox bu gaaw macha allah ci sant yàlla rek Euh, bi ñu doxee dox boobu noonu euh, ba tey ji ñu nekk 2018 ñu waajal ay programme teg ci ay ay ay am ay barnaamij yu am am solo ay programme yoo xam ne macha allah parce que daara ji yàggul génnee na ay kàng génnee na lu ne xale yi am nañ éducation xale yi nekk nañ ci ay conditions yoo xam ne macha allah parce que ku gis xale yi xam ne na mu namuñu dara fa lillahi alhamdu loolu dox boobu noonu duut suñ man-man duut suñu am-am duut euh, euh, ndimbalal yàlla la te ñu ñaan yàlla yàlla gën ñoo dimbale yàlla wëttuñu sàmm ñu bi jaaye rasulillah yeggale ñu fi ñu bëgg àgg programme bi nag am loo xam ne duñ ko présenté parce que lenn lu nekk am na gestionnaire mais en tant que porte parole daara ji moo tax ñu jug chargé wu pour wax daara ji nan lay demee daara ji li muy demee nag dañ koy bàyyeekoon gestionnaire bi mu dox ko waaye ñu ngi sant yàlla ci lii ci barnaamij yi ñu jëm di ñaan yàlla yàlla may ñu si tawfiq defal ñu mboolem bëgg-bëgg ya rabbi ya allah yàlla dimbale ñu nga xam ne mu ngi nekk le 23 samedi le 23 incha allahu moo waral bande annonce bii nii euh, di commencé 8 heures jëm 17 heures incha allahu rabbi de musaabaxatul quran la le 23 avril bii nii di ñëw ñu ciy oo ñëpp di ci sàkku teewaay ñëpp ci jëmm ak ci ci ruuxu ak ci mboolem te feeñ waayu teewaay yi rek ñu ngi ciy sàpp ñëpp seen teewaay di ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm yaa rabbi képp ku bëgg a déglu alquran goo xam ne amoo naatable na alquran nga ñëwal nga fekkee bis bi ñu ngi ciy oo mboolem ñooñu alquran yi amut euh, ubbi nañ porte yëpp ñu ngi ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm yàlla defal ñu tawfiq daara ji duutul li ñuy présenté daara ji wane na boppam daara ji wane na boppam expect euh, euh, yéen ñuy xam ngeen daara jaa ngi nii bu ngeen xoolee daara ji rek jàngatal leen seen bopp daara ji ubbil na portam yi képp ku bëgg a ñëw incha allahu rabbi ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiq salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullah waa Kossy TV di leen gërëm ci set bi nga xam ne ngeen set ci waa dara Mame Fall Seck ginnaaw loolu ñu ngi gërëm ñu ngi jëtal nuyu bi suñ sëriñ سن كليفة الحليفة العام شيخ محمد الماهي إبراهيم يس كناو بن كنيو يجني يباخ يخمني مو إمام بيبي إمام شيخ تيجان ألين سيسي ينا يال يقل لنفي يقل سن تخواي كي بيبي باركي القرآن كناو لول إتم يجني يوسف سرين يخمني مو سرين يداردي di azeyda euh, day xadi jaw ñas ibnu chebrahim moom mi nga xam ne mooy sëriñu daara ji dinaaw loolu ñu ngi nuyu waa Kossy TV yëpp ak ñëpp ki nga xam ne ñu ngi seetaan daara Mame Fall Seck nag daara alxuraan la comme daara yi yëpp yu nekkee ci pays bi ndax pays bi ku xam ne pays alxuraan la ndax Baye moo ñaanoon ne yàlla na alxuraan nekk karaamam kon ñun ci tànk yooyu rek ci la ñu roy daara ji daara alxuraan la ubbeeku na ci bépp jullit boo xam ne bëgg nga indi sa xale mu mokkal alxuraan ci anam bu gàtt comme ni ko porte parole waxee Cheikh Moustapha daara ji bañ ko sancee yàggul ndax le 18 octobre 2000 euh, le 10 octobre 2018 lañ ko lañ ko sanc ba ren ñu nekk ci 2022 te ñu ngi sant yàlla am na ay kàng yu fi génn lu toll ci juróom benn xale mokkal nañ alxuraan wattu nañ ko ci wattu lu rafet tari ko ci tarin bu rafet loolu sant yàlla la kon ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi jëm ci bés boo xam ne bésu alxuraan la euh, muy le 23 euh, avril bi nga xam ne euh, deux muy concours bi nga xam ne moom la ñuy amal fii nga xam ne ci daara ji ñu ngi ci oo waa Medina ñëpp ak képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadu rasulullah ñu ngi la ci woo sa waaye ñu ngi la ci ñaan itam nga ñaan ñaanuñu ci yàlla loolu yëpp boo gisee mu am royuwaay la ci ki nga xam ne mooy suñu sëriñ suñu kilifa muy Cheikh Abdul Malik Ibrahim Niass ndax lii ñuy def nii ci ñoom lañ ko gisee kon ñoom ci tànk yooyu lañ mën a roy ndax ay kilifa ñu jiite gi ñu jiite eh, ay kilifa yoo xam nañ la jàng rek lañu ñu sant eh, ci loolu ci tànk yooyu la roy ci tànk yooyu itam ci lañ nekk ñaan yàlla yàlla buñ ci jugee Euh, comme ni ma ko waxee ñu ngi jub ñu ngi jublu ci bésu alxuraan bésu concours bi nga xam ne daara ji moo koy organisé ren mi ngi nekk ñetteelu édition bi nga xam ne euh, moom la ñuy moom la ñuy amal ren daaw defoon nañ ko daaw jóg defoon nañ ko ren nag incha allah dina uuteeg at yi weesu nii yëpp waaw parce que euh, daaw defoon nañ ko comme ni ñu ko waxee mais ren bëgg nañ concours bi amaat beneen tànk boo xam ne beneen jëmmukaay boo xam ne incha allah yokkute lañ ci bëgg. te loolu incha allah waa Kossy TV daaw ñëwoon nañ ren itam ñu ngi leen ci woo di ci woo bépp euh, taalibe bu nekk ci pays bi di ci woo bépp jullit itam euh, le 23 avril lay doon incha allah fii ci daara ji daara Mame Fall Seck nag comme ni ma ko waxee daaru daara internat privé la internat externat ñu euh, bépp xale boo xam ne am na entre 6 ans bu 10 ans moom la ñuy jël ci daara ji bu fekkee ñu bëgg internet inscription bi 30 mille la bu mensualité mille la euh, waaye xale bu ñu dugg dañuy jëndalé ay blouse yi nga parce que dara ji ay blouse lay xalé sol ay blouse lay xalé di jàngé bi euh, bi euh, inscription bi 20 30 mille la mensualité bi vingt mille ak blouse yi nga xamné mom lay xalé bi di ak fay caution waaye loolu boo gisee teg ci xale yi condition yu baax bi nga xam ne jàng rek lañ la sant moo tax at yi weesu ñu yàlla may ñu ay xale yi nga xam ne watt nañ alxuraan ci watin bu rafet loolu sant yàlla la concours bi itam concours bi nga xam ne la concours alxuraan kese alxuraan rek moo ko lal daara ji organiser ko yàgg ko organiser ba ren jii tamit mu nekk si nga xam ne mooy ñetteelu édition bi kon ñu ngi ci oo sëriñ daara yëpp yi nga xam ne ñu ngi nekk fii ci Medina. ñu ngi leen ci woo ñu ngi sàkku seen teewaay ñoom ñëpp ndax bésu alxuraan amul bés bu ko gën a màgg ñu ngi ci ñu ngi ci ñaan yàlla ngeen ñaanañ ci yàlla bu baax ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah sayidina muhammadin sayidil awalina wal axirina wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak jëmmam di nuyu kilifaay xadara bii di xadaratu al ibrahimiya di ci jiital suñu xalifa muy cheikh mohamadul maahi ibrahim ñas xaadimul umma xafidahu llahu wa raah wa ataala baqaahu fiina maa kulli tawfiqi wa najaax noonu itam la ñu nuyu suñu imaam الإمام الأكبر الشيخ تيجاني الشيخ علي Cissé moom itam ñu ngi koy ñaan yàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla wattu ko sàmm ko yàlla àggale ay mébétam ak sembam yépp noonu la ñuy jaaree nag di nga xamne tay ñun lépp lo xamne ñu ngi koy taxawé ci lu baax rawatina lu jëm ci alquran te lépp lu baax rek alquran mooy euh, mooy euh, bopp bi te loolu soriwut fuñ ko fuñ koy royee wala fuñ ko nampee mooy suñu sëriñ ñun ñëpp muy Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu nga xam ne lii moo doon moo doon léppam bal doy na rek ne moo doon karaamaam te moo ko ñaan yàlla yàlla nangul ko ko ba tax na tey képp koo xam ne yaa ngi uyoone taalibeem nga bu fekkee loolu dëggu na ci yow rek macha allah boo yëngatoo tuuti karaamu jooju dana feeñ ci ci yow ñu ngi sant yàlla ñun ci loolu li nga xam ne nag mooy xew-xew bi nga xam ne moo ñu dajale ñi jiitu ci ay kàddu wax nañ ko muy musabaqatul quraniya boo xam ne mi ngi amee fii ci daara Mame Mafal Seck ci njiital suñu samil suñu zamil muy Seyid Ali sekk sëriñ daara Ali sekk mi toog eh, ñi ngi nuyu mbooleem suñu mbokk sëriñ daara yi nga xam ne ñoo fi teew nga xam ne eh, sëriñ daara Ali sekk ci ay xalaatam ak ay itteem ak ñi nga xam ne ñoom lay jonjol ci liggéey bi ñoom lay defal mushawara ci ñoom la xalaat yi juddoo eh, gannaaw boo xamee ne gis lu baax jéem koo toppandoor jéem koo roy dara nekku ci loolu moo waral biñ gisee lu baax euh, te daara surtout daara internat yi dafa laaj jamono bu nekk ngay jéem a uti lu baax di ko indi ci barab bi pour di gën a am yokkute waaye itam di def sabab bu lay may najaax euh, liggéey bi ku ci am najaax rek yàlla moo la defal tawfiq waaye nag Euh, defe naa yonent bi sallallahu alayhi te sallam moo ne tasabbabu fa inna li kulli shay'in sabab kon ci euh, sabab yooyu rek la Seydi Ali sekk ak euh, ñi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi amee xalaat yi taxawal initie am initiative bu màgg bi nga xam ne man da wax naa ko benn yoon du ñaari yoon ne képp kuy sëriñ daara war nga roy ci lu mel nii jéem ko amal su fekkee amoo ko woon <coughs> te ci façon bi sax man moom kenn laa xamagum mu di ko defee comme nii eh, ñu ngi ko ciy ndokkeel bu baax di ko ci ñaanal yàlla yàlla gën ko ci dëgëral waaye mu dem ba gën a yaatu eh, su ko defee mu ooñu ci ne même su fekkee ay xalaatam la moom ak ñi nga xam ne ñoom la jonjool liggéey bi xeebu ci xeebu ci xalaatu benn sëriñ daara loolu mooy sababab mu ooñu ñun en tant que ay zamilam ñu bokk maydaan bi bokk liggéey bi euh, encore waxaat naa ko fii du benn yoon du ñaari yoon ne euh, man bi ma ko xamee ak léegi xam naa ci moom muy nit ku am infitaax ku ku am ouverture yaakaar naa noonu lañ koy waxee ana ana ana sekk maa ngi jéggulu de euh, maanaam nit ku ubbeeku la ba nga xam ne yow su xamee ne yow yaa ngi ci maydaan bi rek jàpp na ne yow yaa ko gën a xam lépp ba tax dafay soxla say xalaat la nahaara su ko defee loolu tamit nit ku bëgg a dem ci kaw rek moo koy moo koy ittewoo ndax liggéey bi kenn nit mënu ko ñaar mënuñu ko doyut ci tam benn xalaat mënu la ca yóbbu fenn su ko defee euh, fu mu ci mën a àgg tey partager moo ko fa yóbbu euh, ku gëm partager la euh, daanaa wax ne Ali Seck suy wax ak yow da ngay gëm ne yow rek lay defar musaawara waaye su jokkoo ak oustaz Touré mii oustaz Touré mën naa jàpp ne Ali moom rek lay partagé su jokkoo ak oustaz Mouhamed Niane bu jokkoo ak oustaz Niass Mbaye kenn ku nekk ci yow rek da jàpp ne Ali man rek lay waxat ci ci ay mbiram te fekk ne mooy li ma wax léegi rek dafa gëm partagé te te liggéey bii man gëm naa ne loolu rek moo la ci mën a yóbbu fi nga bëgg a dem mooy euh, li nga am ci expérience nga jëfandikoo ko waaye nag nga dem nga dem outil. uti lu bees parce que jamono bu nekk dafay laaj lu bees euh, ndax xale yii ku leen yor laaj na jamono bu nekk ngay uti ay xibra yu bees di uti ay ay ndollal pour pour nga mën ci génn euh, su ko defee daal ñi ngi koy ndokkeel moom bu baax di ko ñaanal yàlla husnu tawfiq wa taysir di ndokkeel mbooleem ñi nga xam ne ñooy sëriñ daar yi fi nekk euh, ni ma ko waxee rek jalsa bi dara waralu ko lu dut Euh, wéttalewante ak moom ci lii nga xam ne euh, programme la bu mu amal ci daara ji mu ooñu ci ci ne nañ dimbalanteeg moom ci ay xalaat nañ dimbalanteeg ñoom ngir gëm na na liggéey bi moom kenn mënu ko mook ñim séqal daara ji rek xëy na danañ ci new doole ñu bokk ci xalaat bokk ci taxaw dimbalante ngir bés bi am najaax ni ki nga xamee ne kenn ku nekk boo organiser sa yëf bëgg nga mu am najaax su boobaa nag loo xalaat na su ma ko defee mu am réussir rek danaa ko def te mooy dajale ñi nga xam ne ñoom laa bokkal pas-pas ñoom laa bokkal ay principe ma oo leen ne leen mbir yaa ngi nii ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn ku ne loo yaakaar ne boo fa jàppee mu baax rek jàpp ca lii mooy euh, solo suñ dajee bi ñun euh, bés bi mbokk yi wax nañ ko le 23 la incha allah mooy samedi bii di ñëw le 23 euh, avril 2022 incha allah. Mm-hmm. waaw loolu moom mooy gis na rek daaw bi mu ooyee Kossy yi ñu defal ko liñ soxla woon mm, rëccuwu ko loolu moo tax ren bi mu demee ba jubluwaat ko tam xel dajaat Kossy TV ndax Kossy yi moom euh, xadara bi yëpp bal adduna bi yëpp seede nañ ab liggéeyam euh, ma di ci tudd ma di la ci tudd yow personnellement euh, Seyd Moussa Biteye sa liggéey ñëpp ràññee nañ la ci Euh, xitmaal pays bi rek moo la itteel xitmaal Mawlana Cheikh Ibrahima moo la itteel ñu ngi lay ñaanal yàlla may la ci ndam sa bëgg-bëgg ci loolu yàlla na la ko yàlla defal euh, euh, jamono moo toll moo tollu ci médiatise ndax yi ñàkk solo sax ñu ngi koy médiatiser ngir di ko xemem loo kon naka la nag lii nga xam ne mooy mooy lépp moo gën lépp waratuta waratuñoo toog rek ci ay ruq di ko fi di ko fi defee waratuñoo toog mel ni ñoo xam ne dañoo ragal liñ nekk wala mel ni ñoo xam ne liñ nekk du dëgg te lii rek mooy dëgg euh, lii nag dafa bokk ci wasi wasaa'il yi nga xam ne moom moo mën a feeñal dëgg-dëgg liñ nekk lan la euh, ndax ñi nga xam ne xamuñ ci dëgg liñ nekk ñi ngi ñuy tuumaal ci ci ci lu nekk wala ñi ngi ñaaw njort ci lu nekk waaye nag bu Kossy TV yi ak ku mel ni moom ak ñu mel ni moom ñëwee eh, wane ñu bañ na dàng ci mbedd mi ñu xam ne ñun liñ nekk dëgg la am nañ ay pas-pas yu sell te itam eh, lii ñu nekk dañ koo jàng nekkul ne rek dañoo tëbee ca làng gi rek ñëw dugg ci dañ koo jàng ba man ko alhamdulillah waaye itam dañ koo bëgg dañoo am pas-pas bi mbir yi toujours man damay wax ne képp ku amut pas-pas bi noo cee def at muy daara képp ku amut pas-pas bi mënoo cee def at di ci liggéey soo ci defee lu mat at rek man jàpp naa ne yow bëgg nga ko gëm nga ko su dul loolu rek doo ci am natiija wala balaa dara rek danañ xam ne yow ci ay tappale nga nekk euh, suñ mbokk Seydi Ali nag ñi ngi koy seedeel ne ku ku ku gëm lii mu nekk la euh, loolu itam moo waral macha allah mu gëm ne Euh, effort yi ma wax léegi ne lépp lu mu xalaat ne su ko defee rek mbir yi mën a dem ci kanam mu xalaat ne euh, médiatise ko loolu bokk na ci li ci gën a gaaw ndax wax naa léegi ne euh, ñiy fecc ci mbedd meeg ñi nangam nangam yëpp ñi ngi jël seeni mbir di ko dugal ci réseaux sociaux yi di ko titre titre yu rafet yoo xam ne boo koy bu ci sa di tege rek nga ne naa gaaw xool lu fa nekk waaye li gën a bari boo fa duggee rek réccu sax lu ma fa doon duggee macha allah waaye jotaay bii nag képp ku tàppee euh, euh, signe Kossy TV yi macha allah boo duggee doo bëgg génnaat lu ne da topp topp topp ba mu jeex alhamdulillah ndax liñ lay wan rek mooy xale yaa ngay jàng sëriñ daara yaa ngay jàng ña ngi ci jotaayu zikkar ya ña ngi ci jotaayu tudd yàlla ya macha allah macha allah loolu yàlla nañu ci yàlla saxal ñun yàlla na jëm ci kanam ay ndaw lañ ñi ngi sàkku ñaan ci kilifaay pays bi. ñi ngi sàkku ñaan ci suñuy sëriñ ñu ñaanal ñu lii ñu man cee sax te yàlla jox ñu nag bépp teraanga boo xam ne euh, euh, suñ ko amee ñu ñu man cee nekk te te te buñ gis suñ bopp yàlla di ñu may ay natiija may ñu ndam ci ndénkaane yi te musal ñu ci gàcce te mooy gàcceeg ndénkaane ndax xale yi responsabilité bu diis la boo xam ne ñun xam nañ liñ enu lan la yàlla nañu yàlla musal ci gàcceeg dénkaane te may ñu ndamal dénkaane yaakaar yi way jur yi am ba jox ñu seeni doom yàlla bu yaakaar yooyu tas yàlla nañ leen delloo fekk gërëm nañ fekk ànd nañu mbégte lool xale yi itam ñu dem ba xam liñ leen éene ñun waaw ñu dem ba xam liñ leen éene léeg-léeg yar bi dal wala léeg-léeg ñu gëdd la wala léeg-léeg ndàngam fi ngay nekkee tuut tànk daanaka doo xam sabab boobu lan la mën ngaa jàpp ne dañ laa bañ oustaz dafa maa bañ daf maa eenal dafa maa nangam waaye euh, euh, ci ay at yu néew ci kanam rek da nga yëngalaat sa bopp ne ah man ndeke lii moo tax lii moo tax oustaz doon ma def nangam su ma ci indee missaal danaa indi misaal ci Seydi Ali Seck mii nga xam ne oustazam bi ko doon jàngal mi ngi fii ci Medina bàyyi di oustaz jeng Dieng xëy na ay at bi mu cay toll xamutoon waaye tey xam na li ko Modou Dieng defal ndax euh, su ko waxul man danaa ko wax te gëm naa ne loolu moo ne ci xolam lii bu ci amee ndam ah du ci fàtte mut jeg nag te danaa koy dégg mu di ko wax ci ci ay waxam di ko gërëm lool li mu ko defal. Ah, su ko defee loolu xale yi ñu ngi leen di gëmloo rek ne eh, Seyda Ali loolu la bëgg ñim àndal ci liggéey bi yëpp loolu rek lañu bëgg ngeen baax ngeen jub ngeen xam ngeen mënal seen bopp dem ba bu ëllëgee ngeen taxawal lii mu taxawal wala sax lu ko ëpp loolu rek la bëgg ci yéen du leneen. macha allah ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen tawfiq yéen ñëpp ngeen wattu alquran amee fi xam-xam amee fi njub amee fi barke ñi ngi gërëm mbooleem mbokki azatis yi di leen ndokkeelaat ci koor gi beneen yoon di ci ndokkeel mbooleem jullit ñi di ñaan yàlla mi ñu indi bañ agsi ci fii yàlla ñu may ñu àggale ko ci alhamdulillah tam nangul ñu ko te may ñu itam ñu fekkee koy at yu bari eh, ñi ngi eh, wax na rek nag ñi ngi fi représenté benn association boo xam ne itam dañ ko bokk ak Sidi Ali mii di ci liggéey muy association Majlis Choura euh, yàlla def ñun ñu nekk ci bopp bi euh, Majlis Choura tam dara taxu koo jóg rek lu dut gën a benn la sëriñ daara yi booloog ñoom xamanteeg ñoom di dimbalanteeg ñoom bu Ali xewlee ñëpp ñëw bàyyi seen ite ñëw ànd ceeg moom bu Oustaz Touré xewlee Majlis Choura yëpp dagg li ñu doon def dem ànd ak moom keneen noonu keneen noonu loolu mooy ab liggéeyam ak yu ko gën a yaatu ñu ngi gërëm di sant bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu yéen mbokk yëpp di leen ziyaara di leen ñaanal te di sakku ci yéen ñaan ci weer bu tedd buñ nekk muy weeru koor di leen baal àq di leen baalu di ñaan yàlla boole baal ñun ñëpp. li ñuy njëkk def mooy dañuy nuyu alxalifa xalifatul aam li faydatu tijaaniya def mooy dañuy nuyu alxalifa cheikh Mouhamadul Mahi ibnu cheikh Ibrahima Niass nga xam ne waxtu bi ñuy wax ak yéen yéen waa Kossy TV mu nga fale ca Makka nga xam ne ci invitation la dem muy booru Makka invité ko te ñoom xam nga seen génn rek la ñuy baaxal ci biti kenn xamul nu mu toll kon moom Cheikh Mouhamadul Mahi ñu ngi koy nuyu waaye ñu koy ñaanal yàlla yàlla may ko omra bu nangu te yàlla delloo si ko waat ci jàmm ci njabotam gannaaw lol danañ nuyu al imam al imam al akbar al imam al al tijani ibnu seydi ali Cissé nga xamne ñun suñ koy wax sax dañu contane ndax ñun suñ lépp mom la ci daram lañ nekkon di kër kër yi ba mëna ubi dara daara ndax nit su la fayut lu bax do mëna taxawal dara te mën nañu wax ne maag mom sori nañ lool ndax mooñu ñu tarbiya am na yeneen ak yeneen yu nekk ci bi ginnaaw xaj na ñi ñi sës ñëpp xam nañ lool kon ñu ngi koy nuyu nuyoog lislaam nuyoo waa aljana muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw loolu danañ nuyu suñu sëriñi daara ji nga xam ne suñu waajur di alxaaji Cheikh Seck ñu ngi profité di ko nuyu moom it ak suñu yaay Adja Zeynabu Thiam ñaan yàlla guddal seen fan lool mañ fekkee njëriñ daara ji ak seen njëriñ njaboot yëpp euh, moo ñu boole Seyda Ndeye Khady Diaw bintu Cheikh Ibrahima Niass nga xam ne moom Seyda Ndeye Khady moom képp ku ko gis rek amul naa taale ndax kii doomu Baay Ñas la jëmmam ja rek kalamam rek Baay Ñas la noppeem tamit Baay Ñas la du dugg ci lu yoonam nekk du dugg ci dara ba ñu suñu waajur joxoñee foofu nañu mooy seen sëriñ mooy sëriñu daara ji mooy sëriñu cekkeen te ku mokkal alxuraan dem leen fa mu jàppal leen bis ñu ngi toll ci diggante deux mille dix huit ak deux mille vingt deux ñu ngi toll ci juróom-benn xale yu mokkal alxuraan ci mokkal gu wér euh, ndax kenn du toog du tagg sa bopp waaye ustaas yi nga xam ne ñoo toog suñ ginnaaw ñoom amaan na ñoom ñoo doon déglu xale yi ndax ñun luñ man rek mooy mokkal na yu waajur yi ñu invité sëriñ daara yi ñu déglu leen kon moom ñu ngi koy nuyu ñu ngi nuyu taawam Cheikh Moustapha moom it mu ngi ca Màkka dem Omra di leen ñaane yàlla yàlla guddal seen fan lool ci barke alquran gannaaw lool danañ nuyu suñu mbokku sëriñ daara yi nga xam ne ñoom ñoo ñu teewal comme ni ko oustaz waxee majlis shura mën nañ ne lii majmua boo xam ne la rek majlis shura ñoo toog nii lan mooy seen njëriñ jimbalante lan mooy seen njëriñ jàppalante lan lañ bëgg sëriñ daara bu am benn dagg-dagg sax ñu taxaw la fajal la ko dimbalante ak yow terewul ñu dem fa waxtaan ak yow ba nga xam ne suñ fa jugee da nga am wér gi yaram ndax dañuy faral di ko defal ay sëriñ daara am na kenn ku feebaroon ba xaj na xaw nañoo ñàkk yaakaar waaye keroog bañ jokkoo man ma bokk ci ñu waroon dem ba jour ba ma am gant waaye sëriñ daara yi keroog bañ fa demee moom waa ji ci boppam nee na gis na ne moom tane gi am tey sax mosu kaa am ndax lo lu neex la te loolu lu baax la man damay wax ne ñoom ñooy samay mbokk tey rusuma kaa wax fenn kaa wax fenn su ma xewlee nag dinaa leen oo danaa leen xëcc sama bopp danaa leen taf sama bopp su ma xewlee su ma xewlewul lu xam dinaa leen wax lu am danaa leen joxaat jee ñu ñaanal ma ndax ñoom ay sëriñ lañ di présenté oustaz Mbaye Thioub di ko nuyu al oustaz nga xam ne moom mooy rais majlis shura Seydi na Omar Niang al oustaz Alhaaji Touré moom foog naa Sénégal yëpp xam nañ ko wala àddina yëpp xam na wala Madina Baay yëpp xam nañ ko ndax mooy kan moy ki nga xamne mo jàngal cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Mouhamadul Mahi su deme bañ nan ka cheikh rek ki moo tax tey ndax jëmm ji mo def ci mom alquran jëm ji moko xamal lan moy alquran ndax bokku na ci li nga ñi fekkon ñuy waxtaan muy wal nu ñuy cotiser xale yi jàng seen tejwid yu ju xawa a xawa ñoo jaxal sax ñun. kon lool yep mom moko def ci mom mom nak moy raisul lajna bi nga xamne depuis 2020 2019 lañ ko sos. mu ñu ci ñett at ci ren muy 2022 di euh, ñetteelu at bi nga xamne ne concours bi sos ko nak li tax ñu sos ko moy lan pour yombal jang ak jangale ndax tay bo xolé xalé yi euh, wax deug fa neexal la man sax ñom la gëna bëgg samay doom ndax ñom la gëna fonku fonk ndax. gis nga jur doom nim neexé nga jël ko yëgeeti ko sànni ko ci àll bi jox ko ben way rek ko xamne sa amagu 30 ans nga ne ko yow la yow la olu teel mako doom Euh, damay toog benn jour parent oo ma ne ma xale nangam de nee na daf laa bëgg a jëndal ginaar ak nag ak nangam indi la ko. ma ne ko lool mu ne yow da ngaa baax ma ne ko alhamdulilah yàlla na continuer waaw kii mu ngi wax léegi ci sama oustaz nga xam ne mooy Mouhamed Dieng Modou Dieng moom ñu ngi koy nuyu. Euh, di ko beral nuyoo euh, wax na dëgg sama jaar-jaar moom kañ na nag dañoo xawoon a lëj rek ba dama ne dama ne ko woon su ma jullee sax dama lay ñaanal yàlla nga dee. <laughs> ma ne ko yow ñaan ñi ma bokk na ci ñi ma doon ñaanal ne comme xale yi yéen lii misaal la pour ngeen déglu ko mooy mooy man sama yaay dëgg la paa bi sonn na ñooy fay mooy nangam waaye moo sonn sama jàng ma ne daal mère bi daf maa sonal daal parce que man jàng mi ma teg jàng rek ak sama oustaz waaye tey ñoom laa gën a bëgg ci kaw suuf ndax tey moo tax ma mën a toog fii di jàngale tey moo tax ngeen man ma introsé yéen waa Kossy TV kon ñu ngi koy beral nuyoo di ko nuyu di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko tawfiq waaye ñu ngi continuer présentation bi di nuyu cheikh Mouhamadul ñaan wala cheikh Mouhamad ñaan wala cheikh Mouhamadul ma ñaan rek <laughs> waaw xam nañ ko moom mu ngi amee internat fii jàkkaarloo ak clinique bi moom it ñëpp ay mbokk daara lañ di présenté suñu mbokk Serigne Daara moom bay Alxaaji Nes di doom ci Serigne Daara euh, Balaji Asta wax dëgg fa ne ah bay Balam Asta nga xam ne moom it ku baax. keneen ki mooy kan Mouhamad Nazir Seck nga xam ne moo ñi téye bot ñi ba tay bañ mëna démal demal seen bop ndax mo ñu jox kër lu man ñetti at bañ mëna ñëw tuxu seen kër jël seen bop à charge li tax ñukay rendre hommage nit ñi foog nañ ne ku dé rek lañu rendre hommage mané ko rendre hommage ku dé amul ndax té nit ku buy dund waxal ko yu baaxam nit ñi mën ka xam su ko défé mu mëna yu baax yoy nga wax ko su dé nit la dana gëna mëna japp yu baaxam yooyu gën ka yok ba mu ëpp mom mo ñu tété bañ agsi fii sax am na daara euh, na sekk ma ne ko du daara na sekk waaye mënta dañ nag daara na sekk la ndax peut-être fi ñu agsi nii moo ñu jàppale bañ mañ fa àgg bëri na suñu morom yu ko bëgg amaane amuñ ko kon moom yàmbalal yombalal ko euh, ñi jël nag ñi nga xam ne mooy yaay daara yi ñu mariner leen journée bi li tax ñu mariner leen ko ñoom yaay daara yi sos nañ seen group weer bu dee ñu dajale lu ñu am yëpp indi ko ci daara ji kon ñooñ mérito nañ lool ma wax la ne la li ma def defuma dara ngir hasard tànn ci bàyyi daara yi juróom ñu am pasteef lañ juróom ñoo xam ne dañuy dimbale daara juróom ñoo xam ne duñ loor daara xam lan mooy dimbale daara sëñ Moussa dimbale daara mooy weer dee nga fay balaa weer dee nga fay waaye nekkul ne man damay indi ñetti saako ceeb juróomi saako ceeb bu weer dee du fay man loolu góob ma ko te man loolu du ko nangu man nga jox ma sama ñàkk moo gën nga sarax ma kon nag parents yooyu nga xam ne ku ci jiitu mooy suñ papa Baara Diop ñu ngi koy nuyu moom it ak ki nga xam ne mooy Cheikh Baye Mahmoud Niass di setu bay Mahmoud di sëtt bay Niass nekk fële ba gambi ay domam ñu ngi fi ak ki nga xam ne bay Aliou Sar momi nek nekk ci fa Cheikh Tidiane ak ki nga xam ne imam Hasan Sek di sama mak imam Seyda di domu Seyda euh, euh, bintu Cheikh Ibrahim euh, yal na yalla yërëm ko euh yal na yalla yërëm len mom mom timit li tax ñu bolé ko ci parrain yi du ne ño bokku ño bokku baay de waye dina wax imam Hasan wohon di wul na bay ñes lu nek sama mam rek motax moo tax ma bëgg ko waaye nag dafa nekk di juble di jubal di jubale te teg ko ci yoonu ihdina siraatal mustaqim kon tamit danañ wax ne moom dafa topp dafa topp charte daara ji moo tax ñu yëkkati teraanga gi teg ko ci loxoom keneen ki mooy bàyyi ñaan keneen ki mooy bàyyi ñaan nga xam ne moom it waajur la ci daara ji waaye keneen ku ñuy rendre hommage mooy kan mooy ki nga xam ne moo lëmbe àddina ki nga xam ne barki Dembo Njaay Sénico ku nekk dégg nga ko mooy ki njëkk taxaw ci àddina laa la wax concours yi nga gis ci àddina bi yëpp amul 20 millions moo njëkk a vingt 20 millions teg ko ci loxo talibe bu ndaw boo xam ne amagul 10 ans kon kooku ñu ngi koy ñaanal yàlla. kooku ñu ngi oo mboolem sëriñ daara yi timit ñu jënd ay produit am di ko demee ndax seeni ko bëri na loo xam ne euh, lu muy jaay la li ñuy lekk la lu mel ni ay bër ay chocolat yooyu du ci xaj day mel ni publicité waaye ñu ngi koy rendre omage moom it Cheikh Abdoulaye Dia. Euh, jokkoo nañ bu yàggul rek mu ne itteem yëpp dana ko dagg pour ñëw incha allahu rabbi mu ngi doon waaj tukki sax waaye ñu ngi am yaakaar ñëwam incha allahu rabbi nga xam ne moom li tax ñu def ko moom it mooy ne gis nañ ne bëgg naa alquran ndax xamante wuñ mos naa dem concours am waaye xamante wuñ xamul noo Ali Seck man it xam naa ko man waaye nag mosu ñoo am jotaay waaye li tax ma def ko rek mooy bëgg naa alquran mu ngi xidmaal alquran li tax ñu invité Cheikh Abdou Malik tamit jaayso Cheikh Ibrahim wan nañ ñu yoon bëgg nañ alquran xam nañ alquran lii moo waral lool gannaaw lool ñu ngi invité ñëpp ñu ngi oo mboolem parents ñu teel a ñëw lu ma ci mën a wax rek mooy ku yéex a ñëw rek bis bi do am foo toog comme daw yeen seigne Moussa gis ngeen ko yeen ñu ngi leen di nuyu di leen gëreum di leen sante nga xamne seen itte yi ngeen dagg yëpp euh, ñew fi ci Daara Mama Fall sek ak bëgg Daara Mama Fall sek ak conseil yu ngeen ñuy jox ñu ngi leen di gëreum bu baax a baax. waa Kossy TV am ngeen ngeen ñi ànd ak gaal yéenay liggéey fay du baay bi si ji barahama OTTV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey fay du baay bi si ji barahama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa OTTV yàlla yàlla jox leen